أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره المختار العظيم ومن الله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله الإمام الجاهل متشافه غير المغرب والتأديب من رسول الله بسم الله فصلى وحسب شدة الأمور الرحمن كراج قيود من أول نفجع بها الرحمن كراج قيود من دعا كرا ربي سلام اسم ربك برمسا الله لا بلاج قوله sabbi isma rabbika laa ci saari màkk yi la bokk saarul màkk toujours xam ngeen lu muy nii ñun te nag yàlla ak solo yàlla xira ak dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sabbi isma rabbika laa yonent na sallallahu alayhi wa sallam wallahi saar wi bu ngeen xamoon li ci nekk bët bi seet ku nekk dana ko jàng fukki yoon ak juróom benn rek moo tax ñu jàngle ko yaare yi ñu di ko ci jàng jumaa yi itam lu bari la ko yonent doon jullee jumaa yonent saar la mas di jullee jumaa wirut jumaa ji yonent julli ci lu dul kaw ci saar yooyu jumaa ak munaafiqoona ak sabbiis ma rabbika laala ak gaasiya sabbi talawal isma rabbika borom fa baatam ismi bi saayit la maanaam teelaloon sa borom la ñun tam mu ne sabbi isma rabbika ñun tam mu ne sabbi ismi rabbika naka noonu bismillah rahmaan rahim bismillah tàmbalee ànd ak baa soo ànd ak baa ak soo àndul ak baa maanaa yi benn sabbi sabaaral bismi rabbika ci tudd borom maanaam bon sellalal sa borom ci turam sellalal sa jëmmi borom su lépp lu yellu ci moom mooy bakkaaroo ak jabarat doomam lépp lu yellu ci melo yi yàlla ndax sabbi ma rabbika itam loolu la loolu la tekki te noonu la ko firikat bi firee ne bàttu ismu bi zahir la am moom it am na maanaam ba soxla mën nañoo wax ne sabbi sellalal isma rabbika tudd borom sa ñu ngi nga war a sellalee jëmmi borom bi noonu nga war a sellale itam turu borom bi rek sellal turu borom bi mooy lan buñ ko waxee turu yee ci moom moo tax bu ñu ko waxee wenn tut lu mooy tudd ñu tuddee boppam tudd yàlla kaw ci ci yàlla kenn sañ nga sant ci ñu la neex tuddee ko yàlla ku yim tuddee boppam rek lañ ko sañu tuddee juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi nga xam ne ñoo rot ci alxuraan bon nag boo bëggee sellal sa tudd borom mooy tuddee ko tudd ba nga xam ne moom la tuddee boppam rek sellalal sa jëmmi borom moom la sabbih bismi rabbika tekki sellalal sa turu borom moom la sabbih bismi rabbika tekki kon maanaay bi benn rek tudd yàlla yi nag tawxiid ci yàlla yi bu ko tuddee lu mooy lam tuddee boppam qul huwallahu ahad arrahman walillahil asmaa'ul husnaa fad'uuhu bihaa kon sañ nga xoolee yàlla tuddum ci déwut boppam loolu mooy sallal turam tur nag ñii almul kalaam dañuy suuf suuf bu ñàkk njëriñ ci ndax tur mooy jëmm am tur bu jëmm waaye loolu baax bu ñàkk solo la koo dégg sax muy teew bu baax ak di laaj maanaam waaw soo boo xam ne rek dina tubaab. waaw tur kay su fekkee tur bi baax bi nga nga nam ku ne xam na ne loolu du jëmm ji boo tuddee tudd nag te nam ma jëmm ci nga tudd ku ne xam na ne foofu pour ñu mooy jëmm ji loolu jarul yëri ci foofu suy baat bii lay nam bon baat bi du jëmmi waaja waaye soo xamee ne tudd nga tudd yi te jëmmi tudd tudd ko nga jëmmi kon xëy na def li jàll la kon nag jamono fan nag gëstu laalaa male aji kawe borom bi nga xam ne mooy borom bu kawe ba kawe yàlla duñ ko firee nekk ci barab bu kawe naka ko dug moom naka nga xam ne li ci waaw duñ ko firee toog ca ara yëpp maanaa ya nga xam ne soriante nangu na ko rek lañ ko war a firee kawe yàlla te ci lu mooy noteel gi not mboolem lu dul moom kawe gi mu kawe lépp lu dul moom loolu la jublu waaye du jaageel nag muy nekk ci barab wala beneen barab barab yu payam ci moom ñooñ kaw ak ñooñ suuf ñoo yem ci yàlla ku nekk moo la gën a jege sa mbuum xol te yonent si tekki na ko jaadu jamme bu leen ma gën a ci yoonu ibnu Makka lum tekki yonent si tey moo gën mboolem yonent yi yaata Ibrahim waale yoonu ibnu Makka yi mu ci géej aw jën wan na ko ñu ne sax jën wa weneen jën daf ko wanaatu mu nekk jëpp ko def géej ba ca biir jën ya yonent ñu xotti asamaan yi ak xarasa kursi yow mustawan mu ne gën da jege yàlla yunus ma nekk jokkoot ko def géej ga kon nga xam ne yàlla amul barab boo su nekkoon ca kaw yonent mi dem ca kaw ba jeexal kaw kon mooy gën a jege waaye moom ma féet ci kaw ba jeexal kaw ak ci nekk ci biir pour pour barab bu kawee naka ku dul moom naka nga xam ne l'histoire duñ ko firee toog ca àll yëpp maanaam yi nga xam ne soriante nangu na ko rek lañ ko war a firee. kawe yàlla te ci lu mooy noteel gi mu not mboolem lu dul moom. kawe gi mu kawe lépp lu dul moom. loolu la jublu waaye du jaageel nag mu nekk ci barab wala beneen barab barab yu pexeem ci moom. ñooñ kooku ak ñooñ suuf ñoo yem ci yàlla ku nekk moo la gën a jege sa mbuum xol te yonent si tekki na ko ci adi jamme bu leen ma gën a ci yoonu ibnu Makka lum tekki yonent si tey moo gën mboolem yonent si yaata Ibrahim waane yoonu ibnu Makka yi mu ci giri aw jën wan na ko ñu ne sax jën woo weneen jën daf ko wanaatu mu nekk jëkkoot ko def géej ba ca biir jën ya yonent mi xotti asamaan yi ak xarasa kursi yow mustawan mu ne gën da jege yàlla yonent ma nekk jëkkoot ko def géej ga kon nga xam ne yàlla amul barab boo su nekkoon ca kaw yonent mi dem ca kaw ba jeexal kaw kon mooy gën a jege waaye moom ma xiir ci kaw ba jeexal kaw ak ñu nekk ci biir pour pour def géej ga gënu ko jege gënu ko jege yàlla ga te wax dul wax tarit bi ñu xam see jàng léegi wane na loolu de ku jëm tam jege yàlla yonent na jaam kañ la gën a jege boromam mooy wax moom su jóotee su fekkoon ca tool nag kon kay ba nga taxawee nga koy gën a jege sabbi yàlla lool isma rabbika borom sa wala sabbi kananal isma rabbika tudd borom sa laala ma gaa ji kawe taaw maka fokk mu indil la wiital yàlla tegtal yu itam fokk mu indil la dëggub yonent bi fokk mu indi sura yàlla ak itam léegi yàlla mi nga xam ne xalaqa bind na mu fa sawwaa fa neemale bindam nga ne ko moo jaa yàlla mi may sellal moo di kan mu ne la mooy ki nga xam ne moo bind lépp la tere ma ne bindam ne lépp lu mu bind askanante na ak bañante amu ca tànk sutantewut te bu tànk yi sutantewoon rek doo mën a dox loxo sutantewut bët tuutale tan morom ma nopp tuutale rek morom ma lu nekk dafa askanante ci bind yàlla yàlla mi bind bind boobu loolu tekkale na kattanam tekkale na it ak xam-xamam bu mat kon nag tekkale na ne mooy ñu di ko jaamu de te yow ko def wala bii ak buur ba nga xam ne ab dara dogal na mu mu soob waaw ba sam jubal ko yàlla ci nga xam ne lépp lu am moo ko xamal muy doomu aadama muy leneen yàlla ko bind ba noppi jubal ko ci la nga xam ne moom la nama ci moom ndem yiw la ndem xay la ñun ñiw moo leen bind moo leen xiir ci leen aw yiw ñooñ safaan moo leen bind wacc leen gannaaw bu mu wattu alxuraan ba jotal ko ba mu ba mu wattu ko kenn ci kaa ngi rek la daana ami saa wu julli runde ami saa wu julli dara su jeexoon ne xanaa kaay ñu ngi ñu naan affaire yu terewul ngeen gàggante ma. waaye ñu ne yow yaa ngi dama xam-xam yu lu xew. waaw loolu boo xamee ne jotal na laa bi xeer yu jot ci ba wattu ko ba nga xam ne jooju laa dootu sànku kon nag yonent kenn ci kaay yi rek la mën naa am ay jamono mu fàtte ko. gaa dootu sax loolu du sànku. waaye nag yonent yi jox ko laa jotale bu ko. bu fàtte ca dara loolu moom jàmb na ndax loolu moom doo amoon rek am ci wéyu bu daa suuf te ba yonent bi daa am ko lëre moo tax ba ila macha allah ndaw la soob na ko yàlla mooy laay lu mu fàtte gannaaw bu mu ko defalee ba tey du wattu ko wala mooy lu mu folli kooku bu mu ko xasee folli nag folli ko ci beneen yonent ba yonent bi dootu ko wattu loolu mooy sama kuréel gafaraafal sara ak yeneen tënku wax na ak yàlla wax na ak yeneen ci yeneen tënku dina yore ko moom buur yàlla mu doon xam ak jaareel fàddu ak ak jaareel bi dem ci wax ko waaye faale dana mu nëbbu de yàlla xam na lépp lu jaam lépp lu mu jëf lu jëmee xam nañu lépp lu jaam bi wax nëbb ko ak lu mu jëf di ko nëbb de yëpp a yemoo ci moom loolu wane na ba tey yàlla ga boo ñu yàpp ñu ko dana ñu jàppale la lii ñu fa jëm ci sariyaan ko gën a jàppale te moo di lislaam mu ne dana jàppale la ñu doon sallallahu alayhi wa sallam sariyaan bi nga xam ne moo gën a jàppale mooy lislaam mboolem diine ñëpp dañoo tiitoon lool lamboo toggee luy jafe sariyaatu lislaam moo gën a jàppale ci mboolem saraxe yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy nit naa leen ko muy diine yonente yàlla ibrahima di diine ci jàppandi in naa leen ko mu weex tal guddeewal bëccëg amayam kenn du ci réer te dokke waa dee nag alquran inna faati ndem jëriñ na zikra waade mu ne ko waade rek alquran bu fekkee waade nga dana jëriñ su fekkee waat nga mbooloo mu bari ñu ñu ñëw jëriñ bu ca waat de kon waade laaj bi mu mel ni ñi war a jëriñ ci waade rek ñoom lañ war a waat fekk na mu loolu yonent ñu ngi koy ñu ngi dem ci ñëpp ñu nangoo ñu bañ ñëpp mu wax leen war na ko. sax na inna faati zikra indi jëriñ lu mu ne la indi ñu naan ca saaru ñu war di jëriñ. in arab na taasunan amul mafhum waare gi moom war na yonent bi su jëriñ ne su jëriñut ña koy déglu nangu ko ak ña koy dégg bañ ñëpp moom war leen ko defal. te zakaru xanaa waadu. man yàqaaka bana mu ragal yàlla koo xam ne yàlla bind na ci moom ragal yàlla kooku buñ ko waaree alquran ko الذي كافر يصلى نار القاف النار سفر الكفر والعياذ بالله waaye nag boo waatee itam ñu yàlla bind ci texaar yi te mooy néefar kooku moom dana wataniku sax waa du ko du ko nangu daf koy sànni sax jàll ba ndax dafa xara xarab safara wu mag ba nga xam ne mooy safara waa alaxira safara waa dina ñu ne safara wu ndaw la xaaj na ci juróom ñaar fukki xaaj ci tàngaay bi safara waa alaxira mesxaa dégg ni maam afala tafsir bi sàq yi rek la jublu waaye li mel ni dafa am ku texe ak ku texaari ak ku gën a texaari loolu moom amul mesxaa ji mu mel ni wa awoonu alay ak ahsanu xaaliqina ak la alamu ay seeyalu risalaat yi afala tafsir foofu ismu faan rek la moo tax mesxaa ji itam ñu ku gën a texaari ku texaari rek la ndax waaw texaari moom benn xaaj rek la ñaar rek fi nekk ku texe ak ku texaari ku texaari mooy kii bañ a gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dafa xala xaras ca safara wu mag wa rek safara wu mag wa mooy wan mooy safara wa alaxira safara wi ne benn xaaj la ci juróom ñaar fukki xaaj ci safara wa alaxira tàngaayu safara jaadi na ñëpp ak doole ju mën a jot benn xaaj rek la jiyee juróom ñaar fukki xaaj ci safara waa laakara ndax aadama ba ko yàlla wàccee def ni malaaka mi dematut benn ñerment ca jaanama yóbbale ko aadama ndax dana soxla safara jaadina mu fab ñerment wa yàlla ne ko nanga ko fa ci juróom ñaar fukki gën jëkk kat foog ko yóbbu jaadina la ko may mu tukkaraadina malaaka ma fay ko ci juróom ñaar fukki gën foog ko wàcce ci suuf mu lakkali nekk ci suuf yépp daw dellu ca ndeyam yàlla digale ci malaaka mën na ko suuxal ci juróom ñaar fukki bëy mu dellu ko ñetti yoon moom safara yi ne ci juróom ñaar fukki bëy ba muy ñetti yoon la ca desoon moom la ñu indi fii ci àddina te ku ko laal bëgg a dee kon nag safara wu mag wa nga xam ne moom kenn fayu ca dara yàlla ñu ci yàlla mu doon naka lay mel malaaya moo topp dee ci mu fi ca safara déefar bu dee safara du dee lu mu lu mu métti métti du tax mu dee ndax su dee noppalu waaye waaye du dund dund bu koy njëriñ de waaye du dund dund bu am njëriñ de ndax dund lakk guddi bëccëg doo lekk doo naan lu may safara loolu du dund bu am njëriñ de xadam ndax ak xadana man ko sakkaat kallaat na mu ci kéefal gëm yàlla wala man ko sakkaat te génne mu asakay doog xaar ju gësëb korite la wàcce wa zakara tam tuddu isma rabbi tuddu borom fa salla tam julli julli juróom wala julli korite ku gëm yàlla ba nga xam ne laaj la ci bàkkaar dañ tuddu sa tuddu borom mooy kabar ñuy kabar gannaaw julli tineet wala mooy julli juróom sax far ak lépp lu lay fàttali mbiri àllaaxira bal bay tuuti roonu da ngeen tàmm na dafa yaatu dund adduna ba am njëriñ de li am nag mooy ñun doomu aadama daal adduna bu ñu jege teew fi suñ kanam kooku lañ bëgg ba moom lañ ëppande ku tardé rek moom la ñun war a tardé wala xaratu waaye alaxira xayru moo gën waaye xaata moo gën a def de waaye kuy tànn adduna da ngaa gisul rek dafa fekk muy sa daye ci xam-xam daal di ma ko mi mi waaye ku xam alaxira xam ne alaxira moo gën te moo gën a dese alaxira su yemoon ak àddina sax te àddina di jeex te alaxira du jeex bañ la alaxira gën naka nag naka nag naka nag bi nga xamee ne xemuñ moo ko gën mbell gën ko lépp te moom du jeex mukk kon mënuñoo dend de alaxira gën àddina de dafa fekk rek teew ñun nag ñu bëgg lu teew inna hada naka dina texe texe boo xam ne laal na ci bakkaar ak tànn alaxira dafi soxu fii aju nekk la jëkkëre luy raaya di way jëkkëre jumne ji mujj jooju di saxaw wala sax saawe yëpp nekk na jëkkëre yi jëkkëre soxu ibrahima téere ibrahim wa Musa ak ak ñooy yonent yàlla Muusaa rek téere ya wàccoon ci Ibrahima ak Muusaa wax ji ma nga ca rek yàlla ni ñuy waat di wax suñ jikko moo ko xam addina mi teew jege kooku rek lañ bëgg alaaka rek nga xam ne ñu ñëwal lépp lim gën gën gën gën sagal nañ ko fàtte ko waaye mi ngi xam te wax jooju nekk na ci mboolem téere ñu watali téere Ibrahima ak Moussa Abdou Karim solo na ci hadisam ne dugg naa ci jàkka ja fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka laa dugg toog mu ne ma jógal julli ma julli ñaar raaka ñëw toog ne ko yonent digal nga ma julli am luy julli mu ne ko mooy gën gi lépp luñ tëral di ko jaamoo yàlla lépp luñ yoonal ñu di ko jaamoo yàlla jullee ci gën mu ne ko ñaata téere la yàlla wasal yonent ne ko sallallahu alayhi wa sallam yàlla wàcce na téeméeri téere ak ñeenti téere wàcce na juróom fukki téere ci siisa doomi aadama wàcce na ñett fukki téere ci yonent yàlla Idris ak Nooh juróom ñett fukk ngoo wàcce na ci yonent yàlla Muusaa fukki téere lu jiitu Tawreet wàcce na ci yonent yàlla Ibrahima fukki téere ak Tawreet ak Linjiil ak Zabuur ak Furqaan muy téeméeri téere ak ñeneen téere Abuu Sarr ne ko moo téere Ibrahima di jëne kon ñu ne ko ay liir rek la ee yow bu bu mbëru bi di xooru bul xooru faluma la jox la doole ngir nga boole àddina faluma la ngir nga réeru di gaaw dama laa fal rek pour nga fegal ma ñaan ak kuñ tooñ ndax man duma delloo ñaan ak kuñ tooñ képp kuñ tooñ nga dimbale ko loolu rek laa la fi fale su fekkee def na lu may loolu mu ne la jàpp jàpp goo xam ne doo rëcc mukk mu ne di wax ne war na ci ku xelu mu gis jamonoom xam xam bu baax jamonoom te jublu ci mbigam maanaam soxlawoo soxlawoo mbigam boppam te war na ci ku xelu bu mu dox lu may yëf yëf bu wuti dërëm bu mu dundee wala yóbbale alaaxira wala bànneex boo xam ne du luñ xaraama mu ne war na ko xelu mu séddale ay waxtoom di xaaj mu di ci jaamu boromam di xaaj mu di ci xalam ci karageeni boromam di xaaj mu dem ci lekkam ak naanam de ak njabootam mu ne ko ndax téere Muusa man nga maa xamal dara ci téere Muusa yonent ne ko waaw yëpp ay waar rek la woon yéem naa koo xam ne wóor na ko ne dana dee naka muy sàggane wala topp yàlla yéem naa ci koo xam ne wóor na ko ne wërsëg ci ndogal ak yàlla laaju yàlla la gàddul wërsëg naka ngay soñña ak di tiit ci sa sore wërsëg yéem naa ci koo xam ne wóor na ko ne danañ ko xisaabal lépp mooy réglé ko nu muy def ba bañ jëf mu ne ko waaw ndax téere yi Ibrahima ak Moussa ya dara nekk na ci gisuñ téere yi mu ne ko jàngal bu la soobee bal tuusiruuna alxayaata dunya wal aaxiratu xayrun wa abqaa inna haaza lafi suhufil uulaa suhufi Ibrahima wa Moussa yonente tekki na Abu Hurayra Abu Zarin tekki na ko yonente yonente bi dénk ma mu ne ko ragalal yàlla mu ne ko dolli ma mu ne ko bëri la jàng alxuraan ak tudd yàlla ndax jàng alxuraan dafay may aw ci ca asamaan may la leer ci suuf bëri la jàng alxuraan ak tudd yàlla mu ne ko dolli ma mu ne ko taxawal ak jihaad mooy ak labbe ci sama xeer sama xeer ak labbe amu ci te xeeras leer yàlla dëgg-dëgg xeeras mu ne ko sant yàlla ñun ñëpp xeeras nañu yàlla yonent ne du loolu xeras lay mu ne luy xeras jaara mu ne ko xeras yàlla mooy nga wattu bopp bi ak lim boole bopp bi moo boole ñaari bët ñi bu ci xool lu xaraam moo boole ñaari nopp yi lu ci déglu lu xaraam kan ak jiw rambaay moo boole lam wi bu ci wax lu xaraam de kan ak jiw rambaay wattu biit bi ak lim làpp biit bi moo lamboo biit biit bi moo lamboo pëy ni moo lamboo ñaari tànk yi ci la ñaari loxo yi la ñaari loxo yi sax jàppal sa ñaari loxo bu ci jël lu la léewut jàppal sa ñaari tànk bu ci dox jëm ci xaraam jàppal sa biig bu ca lekk lu xaraam jàppal sa pëy bu ko tabal fa xaraam mu ne ku def loolu koo kay ko xeras yàlla dëgg-dëgg xeras te képp ku bëgg xalaaxira dana dañuy taare àddina de loolu moo di xeras yonent ne loolu moo xeras ku def loolu xeras na yàlla dëgg-dëgg xeras gis nga di tax yonent fonk taaru taaru gàtt la te boole yëpp ak yàlla ak yonent ak alaaxira lépp a ngi ci moo tax mu ne bu ngeen xamoon saar yi ni ma ko xamee bët bu set ko ne dana ko jàng fukki yoon ak juróom benn lim bi laa xamagul lu mu ci jublu